ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës bokk na euh, ci procès ki fi nekkoon njiital cadastre di Tahibou Ndiaye ñu di ko woyal euh, tey jile tey nag ñu jàpp ni lu toll ci ñeenti témoin euh, kon ñu ngi ci kanamu baax ba daan ci jokkoo ak suñu ndaw Adia Talla ma nga fa beneen ponk lu toll ci ay téeméeri téeméeri doomi Sénégal yi nekk ca Nouakchott ca diwaanu Mauritanie ñaawlu nañu anam yi nga xamante ne noonu la ñu leen di contrôler ngir xool seen i ñàkkal fayda daanaka ba tax na nag ñu naqar lu ni lu ni mel daal di manifester ca ñu sax jóge ca réew Mauritanie daal di roy ci li ñu duppee modèle sud la njiitu réew mi Macky Sall bëgg mi ngi ko xamle ci ab tukkib nemmeeku bi mu doon amal ca Corée du Sud suñu envoyé spécial Mamadou Ibra Kane daañu ko fa fekki beneen ponk xibaaru biti réew yi la ab giraawaale moo daal di am ca Accra nekk peyum réewum Ghana ab euh, station d' essence moo fa daal di lakk lu jege téeméeri doomu aadama ñàkk ci seen bakkan dossier tey jii wér-gu-yaram la ñu jagleel ko ñii ñu duppee perdu euh, de vue euh, ci wàllu VIH sida mooy ñi nga xamante ne dañoo am jàngoro ji ñu doon leen faj ba yàgg ñu ne menten réer la donte nag li ñu duppee ARV di médicaments yi duñ ca fay dërëm teewul nag ñi amee jàngoro yi ñu ngay wéy di réer kër docteur yi daan ci toftal mbokk yi li yéene kaay xëyandoo yaatal geeg faram-fàcce gi gannaaw bàkk bi thank you jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur euh, Média mbokk yi dañu koy doore ak tënkub xibaar bi di Mamadou Massali moom nag euh, daal nañ koy bàyyi bàyyi néggandiku euh, cour suprême moo daal di joxe dogal boobe gannaaw ay weer yoo xamante ni tegoon nañ ko loxo moom moomee di ay kàddu yoo xamante ni tegginewul mu yëkkati ko dañuy dem ba fële palais de justice fekk fa Adiata la ndax procès bu tey bu njaay ñu ngi koy wéyal moom moomee nekkoon nag njiital cadastre lu toll kon ci ñeenti témoin tey jii nga ca na mu baax ba dañu fay fekki Adja Talla Adja maa ngi lay nuyu. maa ngi ni ma ko waxee rek procès bi fuñ ca toll ak tey jii lan moo fa gën a fees waaw fi ñu toll nii dañ ko suspendre gum ba 15 heures wante ki nga xamante ni mooy mbay bi bokk ci ñeenti témoins yi war a jàll tey jii. moom moo nekkoon ci base bi moom nekk dañ ko laaj rek lan mooy relation am ak ki nga xamante ni mooy euh, Tayib Ndiaye nee na Tayib moom xaritam la jabaru Tayib xaritam la tamit laaj nañ ko tamit ci birum terrain bi nga xamante ni mu ngi toll ci neuf cent cinquante mètres carrés nee na terrain boobu état bi moo ko échangé ndaxte dafa amoon benn terrain bi nga xamante ni daf ko bokkoon ak Doudou Ndir ak ndem si yàlla maa pour si loolu nag état bi échangé leen terrain bi ndax ndaxte dafa soxla woon site boobu ci loolu nag foofu la mbir mi jeexee ak mbay gi laata loolu nag ki nga xamante ni mooy Roda Derviche nekk directeur administrateur euh, comptoir commercial du Sénégal moom tamit woo nañ ko laaj ko tamit lan mooy relation am ak ki nga xamante ni mooy Tahibou Ndiaye moom nag day yëngu rek ci wàllum sanitaire ak yooyu nee na moom bu Ndiaye euh, bokkuñu dara lu mu seqoon rek mooy liggéey te moom day jaay ay matériel lu euh, nga xamante ni sanitaire la ak yooyu mosoon nañu seq nag am na benn chantier bi Seydou Ndiaye amoon fi nga xamante ni mooy kër góor gi benn chantier euh, R plus 5. nee na euh, sanitaire yi fa nekk yëpp ak lëpp luy karo tamit moom moo ko ko joxoon mu xayma woon ko rek ci quatre vingt millions te quatre vingt millions yooyu naka don la woon ndax li mu seq ki nga xam ne mooy Sayibou Ndiaye nekk tamit ki nga xam ne ñoom ñoo bokk benn wàcc la ci loolu nag ci réponse yi mu indi yëpp dafa nekk ay réponse yoo xamante ni doyul ñi nga xam ne mooy ñii di layal nguur gi ñoom daal suñu toll ni ñoom nag boo bàyyi nañ ko mu def yoonam wante euh, audition yi dina wéy euh, bu 15 heures jotee dinañ ci déglu yeneen ñaari témoins fàttali ne loolu lañ ci mën a demee ko fi nga xamante ni ci le procès tey bi di amee. Hadia Talla di nga dellusiwaat ak ñun uh, ci procès boobe ci suñu yeneen jotaayu xabaar lay doon uh, gannaaw nag ba mu amee ndam ci procès bi nga xamante ne nii uh, boole woon na ko ak Karim Wade moom Alboury ndaw la mu bëgg nag tey ji mooy Karim Wade jox ko ndàmpaay lu toll ci juróomi téeméeri million loole nag la wax moom nag expert comptable boobee lañu ko doon toppee nag moom mooy wàllug njuuj njaaj ci wàllug escroquerie démb nag ay awakaam janoon nañu ak taskatu xabaar xibaar yi Ibrahima noppi na ngir amalaatam liggéeyam bu fekkee ne CREI da kaa laaj ndaxte lépp booba léegi da def mu jaar ci yoon moo xam ba laaj ci administration provisoire bu DP World ak it ba feeñal compte Singapour mu ne nag responsabilité am da cee mat sëkk. maa ngi koy wax di ko répété et je le redis que compte Singapour bi am na éléments yi nekk sama rapport je confirme que c'est la vérité. Karim Wade kon yoon bañ kaa jox dëgg ci procès ba doxoon ci digganteem ak euh, Papa buri Ndaw avocat expert bi ne préjudice ba nga xam ni nag moom da ka cee jëlee Karim Wade doonoon fi jëwriñ war nag ka fay ba mat sëkk noonee am na appel bu ñu def. atum lëmm mënul génn Sénégal te yore cabinet bu mag su le plan mondial ñu soxla ko war ko fay ay millions yu bare bari ci xam-xamam ak liggéeyam mënul génn. ñu ne juróomi téeméeri millions yi ñu laajoon la ñuy ndax dak toog at mënoo bougé mënoo dem fenn di la toroxal di la xas di la saaga ndax xale bu doon daw fenkat la sàcc la lii la ah metti na. Papa Albouri jàpp ni am na ñu taxaw lépp nag ngir yàq euh, deram mu ne lii du wéy te taxaw na temb ngir jàkkaarloog ñoom. grand temps que ces gens là may ñu jàmm et que instance professionnelle yi bu ñu wax ci loolu man personnellement je mènerai la bataille. et seen mënaas yi ñuy def ak seen manœuvre yooyu tiitaluma jaaxaluma. lu jëm ci citation direct bi avocat Karim Wade bi ñu jàpp ne nag euh, mel ni dañ kaa dugaloon ngir yoon kon ba tey àddu ci euh, mbir mi maître El Hadj Diouf ak i gaayam jàpp ni lii amul genn njëriñ ndax dëgg dañ kaa wax ba noppi. muy leeral yi Mame Birame Diouf awokaa yu Karim Wade ñoom tey ji lanu fas yéene janoo ak taskatu xabaar yi tey ci ngoon uh, lay doon ñu dem nag uh, ba diwaanu uh, Louga fofe xalif bu famille Serigne Abbas Sall ñoom nag ñu ngi sàkku ci kilifay réew mi ñu gën a ubbi seen gët xool teelu bu baax baax ndax réew mi am na ñoo xamante ni ñu ngi fii dugg te nag mu nekk ay nit ñoo xamante ni wóoluñu lool li ñu seetlu sax moo di ne xeetu nit yooyu wala boog ay mbootaay dañuy faral nag di tas réew yi nga xamante ni ay réew yi lislaam la ba tax na nag ñu ngi sàkk kon ci kilifa yi ñu jël ci ay matuwaay bu baax a baax ñu teewlu eh, ki nga xamante ni kon moom mooy eh, xalifa eh, bu sëriñ Serigne Abbas Sall foofee ci diwaanu Louga di Serigne Mansour Sall ci micro Thierno Fall. daañu wut daañu ña wax Sénégal yi nañu wattandiku am na ñu fi dugg si bees ñoo xam ni ñu ngi ñëw ñu ngi installé ci dëkk bi dañu leen bàyyi xel te seen idée yëpp mooy jéem tas encore réew mi dem tas tas nañu Liban tas nañu siri tas nañu Iraq ña nga Yemen ña nga Yemen te seen euh, seen dara seen dara sottiwul dañuy saaga saxaaba yi dañuy saaga jabaru Seydina Muhammad yi ci xale yi li ñu njëkk a visé nag te ñoom li li ñuy wax yëpp teguñu ko ci benn asas te ku yëngatuñu la doo jullit kooku nag Sénégal yi moo ci bàyyi xel bu baax ñu ngi tenn rek mais ñu ngi ñëw ndànk di di raam di raam te lii raam ci ñàkk bi la jëm bëgg nañu feex ba nit ñi bàyyi ci xel. gannaaw Louga dañuy yi euh, Sikicoor foofe nag askan wa ñoom la ñu seetlu rek mooy li ñu duppee numérique ñoom xamuñu ko bu baax ndax numérique boobee du yàgg lool euh, sunum réew maanaam lépp loo xamante ne jëm na ci audiovisuel euh, daanu dugg nag ci li ñu duppee numérique la ñu seetlu nag mooy nguurug Sénégal moom moo deful communication ba ca wax ñu bari nag dañuy jënd ay écran plat teg ji laaj ay décodeur commerçant yi nga xamante ne ñoom ñoo leen koy jaay diwaan ba Boubacar Diassi li askanu Ziguinchor xam ci dugg bi suñu réew di wàcc ci télévision numérique matul waar. mën ma laa wax au fond lan la teg. bo laajtee ñu si ëpp. di nga gis ne ne ko moom euh, dëgg nañ ko nii rek mais xamuñu li nga xam ne ne ko moo nekk ci biiram. askan wi ne état bi moo doxul ay jéego yu mat sëkk ngir ne ñi mën kaa xam. li nga xam ne ne que moom li waroon euh, def pour ñi nga xam ne ne euh, ñoo ko war a jëfandikoo mën a xam lan lañu war a mën a jël comme comme matuwaay pour ñu mën a fax defuñ ko. bëggoon naa ñu wax ñi ti décodeur bi ñaat lañ ko jaay wax ñi ti tamit ku soxla décodeur bi fan nga war a mën a dem pour mën koo am. lu am te wér mooy jaaykat décodeur yeeg télévision yi ñoom tàmbale nañu jël seen matuwaay ndaxte am na ay clients yuy laaj décodeur yi. dinañ si jëlee si matuwaay bu baax a waaw client yi moom ñu ngi laaj décoder bu baax moom même télé yi mu ngi jaar bu baax moom waaw ñu ngi koy laaj bu baax moom ñu ngi koy laaj bu baax client yi bëgg nañ ko. ñu jàpp bokk ne nguur gi am na ñaari ay bés ngir mën a yeggee askan wi lépp lu jëm ci télévision numérique ñu di la jaajëfal bu baax bu Boubacar Dias yi ñu wax nag ci faux billets yi nga xamante ni lëmbee na réew mi faux billets yooyu gis nañ sax ne bari na ay giraawaale yu muy indi tey di nag ñu jàpp ni ñu bari ñi ngi jànkonteel faux billets yooye bokk na ci commerçant yi nga xamante ne ni euh, ñoom euh, lu ci bari dañuy laal xaalis bi euh, tëgg yi chauffeuru taxi yi naka noon nit waaye tey jii am nañu ay feem yoo xamante ni bu ñu ko defee dinañ mën a xam faux billets yooyu waaye nag la ñu seetlu rek moo di yi lëmbee na marché bi Maimouna Ndiaye. faux billet non non xamu ràññee faux nee na xamu ci dara moonte de booy def yenn liggéey yi foog léeg-léeg nga koy def sa xel. amuñ machine boo xam ne dana détecter faux mais bon nuñ koy comme circulation bi am na ak xaalis bi nuñ koy jëfandikoo loolu yëpp leen dong la man mooy di ko di ko di ko di ko laal ak suñ loxo parce que boo yàggee ci xaalis bi. am na nu muy demee sa sa sañ catu baaraam yi mën na détecter faux billet. wante ndax làmb xaalis bi rek ne faux billet la loolu rek doy na. nu ñu koy détecter mooy si signes yi at kayit bi nu mu mel at nu mu woyefee yooyu yëpp boo ci yàggee ci xaalis di ko xam boo ci yàggul peut-être nag mën naa am doo ko xam. ci lu ñu gis ci faux bi si plus moo gën a chiffonné wu moo gën a moo gën a woyef ko vrai bi par exemple si touché bi mooy divise boo xam ne fii la quoi mooy CFA bi bu dee nag exemple euro bi la ñuy wax. euro bi en général dafa am ay kii yu bëri yoo xam ne xam nañ ko ci puisque man au moins au moins génn naa def naa au moins l'Europe peut-être nu ko doon touché xam nañ ko Europe bi dafa am ay ay parti yoo xam ne dañuy wax partie bi dafa ñagas day am côté yoo xam ne dafa ñagas donc lépp ci loxo rek nga koy xoolee avant nga koy xool d'abord ci ci ci rayon solaire yi njëkk la touché ko ci touché boobu nag mën nga ko détecter rapidement boo yàggee ci xaa muy ay yu bari yu liggéeykat di def léegi ngir bañ ku leen nax. wante léeg-léeg ñu jaar seen kaw. daf ne ma ndax yor na 8000 francs 10 000 la ma doon jox mais ma joxee 10 ma téye bi rek xam naa ne baaxul ma ko ci baaxul mu joxaat ma bu baax. gis naa ko koo xamante ni crédit la la léegi 10 lañ ko jox boo xamante ni baaxul quoi waaw léegi moom mu wecc waa ji te kii waa ji crédit 1000 francs la jënd mu jox ko 9000 francs jox ko bay 10 000 boo xamante ni baaxul. lu tax nag euh, li ñu duppee détecteur de faux billets maanaam machine yooyu nga xam ni dañ koy jël ngir xam ni xaalis bi baaxul ñu ci bëri dañ koy sàgganee. ba ma demee Europe dañu doon jàngal nañu machine boobu ce n'est pas fiable machine bi lu tax fiable nit mën na ñëw jaay la ko moo tax il faut faire très attention je di dis nit mën na ñëw jaay la machine bi or que fekk moom mu dem wuti faux ñëw jox la ko nga contrôler ko ci machine boobu mu dox. jàngaloon nañ ma boobu expérience ne ma machine bi il faut faire très attention ci machine yi nit mën na ñëw jaay la machine bi ba pare ndekente machine boobu day détecter en même temps moom faux billet bu muy yor bi. liggéeykat yu bari nee nañu fi mu toll nii dañ leen di nax di leen jox faux billet loolu tax na ba tey jii boo demee marché ti leen ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci wurus bi léegi dañoo am délégué boo xam ni buñ leen indilee xaalis bu takku moom moo koy xool xam ndax baax na am déet. Maimouna Ndiaye lu toll ci téeméeri téeméeri doomi Sénégal yuy dund fële ca Nouakchott ca diwaanu Mauritanie mer ba futtu la ñu def ndax euh, li ñu wax mooy bu buñ leen di contrôler euh, di xool seen identité dañ leen di daanaka ñàkkal fayda moo tax nag ñu mer lool nee nañ sax ñoom noppi nañu ngir jóge ci réew Mauritanie seen euh, mer nag wane nañu ko ci kanamu ambassade ba nekk foofee ca Nouakchott Mohamed Diop. ñaxtu tey bii li ko waral mooy euh, naqarlu anam yu métti yi nga xam ne euh, ci la ñuy amal saytum carte séjour bi di kayit gi ñuy laaj doxalin yi nekk ci dëkk bi saytu gi nag daa mujj tar lool euh, ci ayu bés yi weesu nga xam ne doxandem yu bari yu amuti kayit génn nañ leen dëkk bi te ay sénégalais bokk ci rawatina nag nappkat yi loola waral ñaxtukat yi daje tey fii di metti lu njàpp gu metti ak bund gi ñu ne moom la ñuy jànkoonteel buñ leen jàppee war leen a ndax man mii di wax ak yow bërkaat démb rek sama sama dafa génn di dem marché ñu jàpp ko ak xale bu toll nii te moom mi ngi nekk en état. gouvernement Sénégal mu ñëw dimbali ñu parce que ñun instant yi dañoo sonn mënoo xëy surtout góor ñi ñoo gën a sonn da ngay liggéey sax xamuñu yow da ngay wàcc rek noonu lañ lay jëlee yóbbu. ñeenti at a ngi nag ginnaaw ba réewum gànnaar moom jëleeb dogal ne doxandeem bu bëgg des ci dëkk bi na dem daggi carte séjour ba mu des xale yi amagut fukki at ñaar ak étudiants yi dogal bi nag kilifa yi fi toogal réewum Sénégal ñu ngi woy di ko fàttali seen doomi réew yi ne ci dëkk bi. Euh, ramas yi moom euh, lu am la lu am la monsieur man dem naa ba fu ñuy ramas bu ñu ma laajee bu ma laajee dañ ma ne étranger yi la ñuy ramas du Sénégal yi donc li ñuy li ñuy laajte mooy carte yi problème bi yëpp loolu la donc euh, nu ñuy def ba euh, vraiment sénégalais yi tamit mën a euh, fexe ba am seen carte de séjour loolu tamit dañ ko waxtaan. waaye daa fekk ne Sénégal yu bari yiy dund ci Mauritanie diis na lool la ci ñoom ñu génne lu toll ci juróom fukki junni CFA daggee ko carte séjour. ba tax na ñenn ci ñoom dañoo far nag di dund ci ak làqu am ci ñeneen ñu takk seen bagage wara a ñibbi nag. ñaxtukat yi nga xam ne nag ñoo nekk sama ginnaaw seen mébét tey mooy ñu yegge seen naqar ñi nga xam ne ñooy kilifaay Mauritanie ak kilifaay Sénégal ba lii li nga xam ne mooy coonaay carte de séjour wàcc leen. Mohamed euh, Diop ñu jógee Mauritanie dem fu gën a sori lool euh, siwul euh, nekk fële nag ca Corée du Sud du péyum réew ma njiitu réew mi Macky ma nga fa di amal tukkib nemmeeku tey ji nag ñaareelu bis ba la mu wax nag mooy dafay daal di roy ci lu ñu duppee modèle sud coréen ngir mën a suqali plan Sénégal émergent tey ji nag dalal nañu ko fa ci ab déjeuner naataango ba nekk foofee moo daal koy dalal mu ànd ci nag ab délégation bu takku ko fi nekkoon njiitum jëwriñ Mimi Touré jëwriñ leen dénk lépp lu jëm ci jëflante ak biti réew ak njàng mu kawe ma moom njiitu réew mi Macky Sall nag kon ni ma ko waxee rek ma nga suñu envoyé spécial Mamadou Ibra Kane Sénégal fas na yéene jël exemple ci Corée du Sud président Macky Sall ñëw fii tukki nemmeeku ñeenti fan tàmbalee ko alarba ji paase nee na daal loolu lu ko soxal la tey gi bi muy am benn Euh, ndaje euh, ak naataangoom euh, Corée du Sud nekk benn jigéen bu jàmbaare waxtaan nañu lu bari ci wàllu coopération bu dox diggante ñaari réew yi jokkalante bi surtout ci wàllu koom-koom président wu Sénégal nee na daal ni Corée du Sud amee jom taxaw tem maanaam ba tey gi nekk pays développé te mu yemoon ci Sénégal ci wàllu maanaam ndóol ak sous développement bi ñuy am suñu indépendance en 1960 loolu sénégalais yi war nañ ko gëstu bu baax a baax a baax ndaxte tey Corée du Sud mooy onzième économie mondiale ci koo xamante ni en 1960 ñi gën a rafle ñi gën a ndóol nga bokk ci àddina bi tey Sénégal ba tey gi mi ngi xeex ndool mi ngi xeex pour am développement loolu moo waral nag président Macky Sall ñi taxawal. plan Sénégal émergent nee na loolu moom exemple boobu moom dina ko xool bu baax a baax a baax ndax Sénégal mën daal bu jëlee exemple ci Corée du Sud mën développé wu moom tam Mamadou Ibra ni nga ko waxee Corée du Sud nekk fukk ak benneelu réew bi gën a am doole ci uh, àdduna bi uh, tàggat yaram laata ñu jàll ci xibaaru biti réew yi ab tënk la sunu gaynde yi nga xamante ne kon ña nga uh, foofee ca Mbour ñoom dinañ ñëw tey ji ci stade Léopold Sédar Senghor ngir entraîné fii dañuy daal di tàbbi kon ci xibaaru biti réew yi ni ma ko waxee ak giraawaal yi nga xamante ni moo am ca Accra nekk payum réewum Ghana ab station d'essence moo lakk lu toll ci téeméeri doomu aadama ñàkk seen bakkan Chérif Dia ca Ghana lu jege téeméeri doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci lakk bu am ci benn station essence ca Accra capitale ba ñoom ñooñu nag daf doon taw taw bu bari ñu dugg ca station ba di seelu fa la leen musiba fekkee buñ sukkandikoo ci waa croix rouge. li nag musiba naaru laay la buñ sukkandikoo ci président ba di John Dramani Mahama moom sax dem na fa mbir ma amee hôpitaux yoon nit ñaa ngi fay bari ñu fa yóbbu ñi nga xamante ni ñoo am ay gaañu gaañu. bilan bi nag ma ngay gën a yokk ba léegi mun sukkandikoo ci kilifa yor sécurité ba lakk gi mi ngi am bég ci guddi ci àllarba bi ci fu jege rond point Kwame Nkrumah ca Accra liñ jàpp ni moo ko waral nag mooy génn kër moo doon tàkk far safara sa dem ba ca station ba ca Égypte ka jiite woon réew ma di Hosni Moubarak tribunal ba firndeel na ni dina ko àtte ci complicité meurtre lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi manifestant ci fukki fan ak juróom yi nga xamante ni révolution ba amoon na ko foofa ci février atum 2011 cour de cassation ne annulé na complicité d'accusation yi nga xamante ni daal tegoon nañ ko moom ci koom di fàttali ni ci juin 2012 Hosni Moubarak doon ko condamné woon ci première instance ci li mu tëdd ci giir ak dundam ca kaso. wante moom ca weeru novembre ci atum 2014 doon koo seetaloon loolu nag tribunal bi dellu na ca gannaaw ba tax na daal faw ñu àttewaat ko. jeexalee ko ak Syrie foofa nag ginnaaw ba nga xamante ni soldaar yi réew ma ña ngay am ay perte seen biir ndax rébellion nañ leen ma mënee tax na daal ay volontaire ñoom jóge ca Iran Irak Liban ak tamit Afghanistan daal di ñëw rek ngir mën a renforcer armée syrienne bi ngir jàppale leen. ñoom nag seen lim ña ngi ko jàpp ci juróom-ñaari junni doomu aadama di ay iranien ak ay chiites yoo xamante ni ñu ngay jóge ca Irak. ñoom avion moo leen di indi ca Damas wante dina am yeneen ñetti junni doomu aadama yoo xamante ni ay volontaire lan ñoom ñëpp daal seen ab lim nar a toll ci fukki junni doomu aadama ñëw ngir protéger capitale ba bun sukkandikoo ci chefu al Nasra di Abu Mohamed al Julani moom nag moo jiite branche syrienne bu Al Qaïda di séq ak waxtaan télévision bii di Al Jazeera Chérif Dia ñu di la jaajëfal niñ ko waxee ci ponk xibaar yi dossier tey ji wér-gu-yaram la ñu jagleel ko ñu amee jàngoro yi sida ñu duppee leen ay perdu de vue muy nag ñiy faju ba yàgg ñu ne menten donte garab yi kenn du ci fay dërëm teewul nag ñi amee jàngoro ji ñu ci bari dootuñu dem kër docteur lu ko waral ci biir dossier bi lay doon dinañ ci delsiwaat laata xibaar yi di jeex ñu ànd yër li yéenekaay yi xëyandoo ak borom jërë ngeen jëf

gouvernement du Sénégal tontu na ko le jour dañu kenn kàddu gouvernement bi mu di maître Amadou ministre gouvernance locale moo tontu li mu wax moom Mamadou Mohamed Ndiaye ñu di la jaajëfal bu baax yegsi nañu euh, ci euh, dossier bi wàllu wér-gu-yaram la ni ñu ko waxee woon dossier bi nag ñu euh, jagleel ko li nga xamante ne rek moom mooy ñi amee jàngoro yi Sida mu mel ni kon am na tuuti gàllankoor ci dossier bi dinañ ci delsiwaat ci suneen jotaayu xabaar ñu di leen jaajëfal yéen ñi doon teewlu xabaar yi ñu jàpp ci xabaar it ba mu sotti cant ak ngërëm ñàllale keps xam naa noppi nga waaw. te àdduna bi xibaar yu wóor te leer noonu la ko rédaction bi di defee te amal nga ko. ñu di la jaajëfal bu baax rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20 ci yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf.